c'est une violation très grave de la constitution du Sénégal moom ax ay nit kuy génn réew mi yem parce que constitution dafa énumérer ay liberté la propriété la circulation libre def ko énumérer ci article constitution baa ngi nii lan la wax lan les libertés civiles et politique liberté d'opinion liberté d'expression liberté de la presse liberté d'association liberté de réunion liberté de déplacement liberté de manifestation la propriété toutes ces libertés la ñu ne c'est le pouvoir judiciaire moo koy protéger la justice le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la constitution et la loi ça veut dire que may dem xa ñëw fu ma neex si àddina bi sa yoon newu ci sof le pouvoir judiciaire si boppam ne mënatuma fi jóge wala nii laa fiy jógee sinon yow pouvoir exécutif amuloo pouvoir boobu man ma moom sama suuf jënd ko yore sama tiitre foncier loi moo ne mhm. nit mënu koo dindi si man lu dul dans tel et tel cas de procédure la loi est là 2011 mhm. du 30 mars 2011. ne la nag léegi boo fi bëggee tabax da ngay ñaani autorisation de construire man gouvernement bi maa la koy jox. nga téye ko. gouvernement bi jox la ko maire bi signé ko préfet signé ko. nga yor su loolu yëpp xëy suba jël say ouvrier lebi say banque lépp fu nekk commencé tabax ñu xëy suba dal na fi ñëpp jógee mais kooku nag déli la kooku déli la. Ah, parce que général par jour du mais boo xoolee code pénal di nga gis. délit attaquable aussi. délit la et faute la. Mhm. on doit on peut attaquer ces décisions en référé devant la cour suprême référé mais est-ce na ko. Ah, mais diiru trois mois la ñu wax. ah moo ma jar na ko. Mhm. parce que ba ñuy décider loolu. mais am na ay ay dommages aussi am na ay. mais yu garaaw la ah, c'est ça loolu lay wax. dommage yu garaaw garaaw la. Mhm. parce que euh, pa ça ne durera pas trois mois. parce que dans trois mois bu fekkee ne sax bàyyi nañu affaire boobu mais ñi tas si àddina bi yëpp est-ce que dañuy ce que ñi ñi uti woon si àddina bi yeneen dëkk nekk étranger jënd jëli sema di paree jaay seen kër Congo pour tabax Sénégal mi nga xam ne am nañ fi garantie wu jàmm dinañ ne mais ak li xew est que naa jaay sama kër Congo pour defaat ko fii parce que la confiance ça compte dans l'économie. Mm-hmm. la confiance wóolu dëkk. quand il y avait les de Côte d'Ivoire et autres mais ñëpp Sénégal dañu ñëw aussi appartement parce que Sénégal dañu wóolu woon mais si le Sénégal perturbe comme ça la chaîne des économies et des droits même bu dee pour trois mois même bu ñu ko yëkkatee avant ñu koy fajaat góob yooyu dina yàgg de mm-hmm. tous ceux qui ont disparu nekk chômeurs est-ce que ñoom dugg ñu si gaal yi parce que y avait des centaines voire des milliers de maçons d'ouvriers de plombiers de n'importe mhm. quoi mhm. boo demee ba amatoo yaakaar si dëkk bi man amoon naa liggéey commencé liggéey dëkk bi waxtuma fi dara maa ngi dem si gaal yi xoolal li ñu def daal di ànd ñoom ñëpp dem dugg si gaal yi dem day dellu si voilà euh, et je dis faj faj feebar docteur bu aay bu mu doon mën na ko faj li nga xam ne gouvernement bi daf ko ragal wala mu ne def koy seet mais kooku laajul benn décision bàyyi lépp di doxal seen soxla boo xëyee suba tu convoque mu ngi tabax tu convoque mu ngi tabax andi leen seen këyit mais xanaa am ngeen xam-xam boo leen xooyee xam ne këyit yi dagat na mais bàyyi la ñu dem yow andi ñu kaay andi su këyit ah yow amoo këyit bu baax di sa dara baaxul kon yow mii fi nga fi toog délinquant nga parce que li ngay tabax awul yoon donc on prend une sanction contre toi jaadu na doo wax doo ŋaang parce que li nga def xam nga ko yaako tey yaa gën a xam ne booy def ñaari étage di nga am de construire wala moog di moom suuf si lu dëgg donc tu les gens vivre leur vie doo xëy suba comme on a fait pour la presse pour les impôts pour tous les avocats aussi pour la impôts yéen ñëpp ñëw leen ma xool leen déedéet du noonu bàyyil gars yi ñuy dund rek bés bu ne nga ne Pape Ngagne kaay ma xool mbir wala sa affaire bi gis naa ko lu tax mu teg nga teg ko fi. Mm-hmm. mais ki tooñ saa yoo ko xoolee rek xam ne tooñ na nga duma ko mu continuer dem seeti keneen mais doo arrêté ñëpp fukk yi tooñ juróom-ñeent fukk yi deful dara nga yàq seen àddina bàyyi ñëpp daw fukk yi tooñ kenn doo rëcc ñëpp ay ñëwaat xam nga si affaire droit pénal dañu jàngaloon. li ñu jëkk a jàngal si principe de droit yi mais léegi yi duñ defati attention si principe yi parce que principe yëpp ay tubaab nu ko andil si dañ koo fàtte ce principe dafa am njëriñ dañuy wax ne il vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent mm-hmm. ki sa coupable mm-hmm. wóoyu boo ko bàyyee mu dem dina ñëwaat wóoyu wóoyu la rek taw <laughs> gën a bon mooy jàpp ku deful dara ba jàpp ku moo gën a garaaw mm-hmm. yàqal ku deful dara moo gën a bon bàyyil gars yi dem oui benn par benn dañ dellu si waat <laughs> parce que day neex. day neex dañuy ñëwaat. sa gendarme yi nekk dëkk bi xam nañ fépp fu nit def lu lu jaaduwul xam nañ ko mais ba lañ joxee ordre général neen na ñëpp taxaw ay ah, ñoom tam dañuy exécuter rek ils sont pas responsables parce que c'est des hommes d'autorité ils obéissent à l'autorité mais l'autorité aussi doit savoir que amul autorité bu muy atteindre aux libertés mm-hmm. constitution Sénégal moo ko wax c'est la justice qui garantit les droits et les libertés yow gouvernement da nga am procédure yoo xam ne ak pouvoir yu la jox boo gisee lu neexul tu saisis la justice la justice poursuit et interdit gendarme bi ne la eh yow sa kayit gi baaxul yóbbu la justice justice xam ne baaxul mu ne interdiction de construire expulsion interdiction de circuler euh, euh, bracelet électronique prison yëpp juge koy wax mais du gouvernement moo koy def Mhm. d'accord tout à l'heure bi ngay wax ci liberté yi yaa ngi junj léegi interdiction de sorti maanaam génn bi loolu dafa nekk d'actualité fi mu nekk nii parce que gis nañu ay kilifa yoo xam ni euh, dégg naa ci sax kenn muy Abdoulaye Sow wax fa dëgg yàlla nekk ancien euh, ministre de l'urbanisme mu ne dafa dem ba aéroport benn policier ñëw ni ko il faut ñu xoolaat say kayit ci noonu la vraiment wëlbati ko te mi ngi waroon ànd ak fédération sénégalaise bu football dem. lu mel noonu wax nga ma léegi ne loolu bu waree am justice moo ko war a dogal ca dëgg dëgg dëgg waaw juge moo war a def lu mel noonu mais est-ce que loolu aussi duggul ci mbiru politique parce que bu ñu fàttee itam ni nekk nañu fi Ousmane ko nekk fi te kër góor gi gendarme yi wër ko pendant daanaka lu jege ñaari weer te loolu itam du ju du juge moo ko dogaloon wala dara gis nañu itam mu war a dem tribunal ñu war a jaar fii ñu ne ko fii ngay jaar ba mu indi coow yu bëri bëri ci la ñu nekk. lu tax Nelson Mandela reyul tubaab yi nekk Afrique du Sud yëpp ba mu falo lañ ko def dañ ko def Ousmane ko buñ la xësee ba fal si nguur waaye ngir yàlla lañ la def démb konteetul yàlla la fa jaarale pour dénk la askan wi. Mhm. ka ngay fayu si moom si askan ko fi teg bàyyil mu dox ba yoon dab ko sa yoon dina ko dab. c'est pas parce que euh, euh, man nee naa Macky gouvernement maki si fin bi j'ai défendu mosuma gis Ousmane Sonko ba tey jii Ousmane Sonko mosuma gis ba bésu tey bi waxoon naa ko waxaat naa ko ba bésu tey bi mosuma gis mosuma gis mosuma wax moom mosul wax man et je l'ai défendu autant qu'on peut défendre quelqu'un samay mbind ngi nii man sama défense du wax damay bind di tas si bi bañ koy jàpp di ko tëj bañ ko attee ba pare ba condamné ko sax j'ai démontré que condamnation bi valable bind di tas si dëkk bi parce que je défends le droit surtout tout je défends les libertés mhm. parce que ëllëg yi fi jóge bàyyi fi suñuy doom mhm. bàyyi fi suñuy sët buñ leen bàyyi lii parce que man dañ ma tooñoon tey maa am doole damay fayu <laughs> mais <laughs> ku yàlla fal fexe na ba ñu tooñ la ku yàlla fal. fexe na moom ba ñu tooñ la balaa mu lay fal. Mm-hmm. fexe na ba nga souffrir balaa ñu lay fal. Mm-hmm. ah ya xoolal yonent yëpp rek bu fekkoon ne yonent bu yor lépp fayu bu sëñ tuubaa doon fayu bu kaneen doon fayu bu ñeneen doon fayu kon musiba am. Mm-hmm. yàlla mi lay yóbbu daf lay jàngal àddina man jàngaluma loolu ma si loolu moo tax duma falu ba faw <laughs> c'est sax bu yàlla moo fa jaar parce que masuma bugg yu mel noonu mais nag. yow bu la fi yàlla jaaralee ba jox la àddina bi yëpp da ngay yore àddina bi yëpp bul ne def nañ ma ko déedéet à mon avis na ma ko défendre woon man si xaw ma ko mos mu ko gis principe ya ma doon défendre laay défendre tey ba yàlla jëlee ma fi